bokk internet yi ñu ngi fii nii tey ci def ci région de Tamba Koupantoum ànd fekk euh, ministre Mayacine Camara secrétaire chargé réseau ferroviaire ci pont bi ngeen gis mu nekk fii ci Touba Sam Sam ñu ñëwoon pour euh, mën nañ wax euh, visiter ko mais biñ ci ñëwee dañ gis ne travaux am na solo trop parce que ñu liñ bëgg mooy que ne raay bi euh, Dakar Mali Dakar euh, Bamako bi mën a mën a commencé fii nag nekkoon problème boo xam ne comme ni ko chef de waxoon rek fii dafa nekkoon loo xam ne dañ ko doon que mooy lu ndaw li lu mag nag mooy fexe raay bi dem diggante Dakar ak Bamako loolu moo taxoon ministre ñëw ànd ak euh, ñëpp ñi xam ne ñu nekk chantier bi pour ñu fii ci Touba Sam Sam ci pont bu mag boobu xam ne fii ko ko xamoon xam ne benn dégg la ko lu mel mois bi tey defar nañ fi ñaari pont boo xam ne problème bi la mais pour fi raay war a mën a jaar par nañ ko ñun ko defar mooy EIFAS mu nekk am solo liggéey bu am solo fii nii la ko kon ñi kanam rek gis ngeen le ministre moo nekk ñun ak ñu àndal ñoom rek pour wan leen fi xew déglu tim euh, si ñun seen discours yi fii nii ci pont bi Touba Sab Sab.

kilomètres. selfie la nekkoon trabaja bien la. आज अंदर âge euh, métal ci wax ci daam on a kay tout ça c'est pour stabiliser le tali euh, après on a renforcé là aussi on a mis des radiers c'est du béton oui tout ça c'est du béton c'est 40 centimètres de feu avec une veste de plante par jour et pour éviter que les eaux viennent sur la ABF ñu jox liggéey bu toll nii nga xam ne comme ni ko ministre waxee léegi donc liggéey bi daanaka mosu fee am loo xam ne ñun ay société Sénégal ñoo ko def ay doomu Sénégal réhabilité euh, li li mel li yàqoon fii yëpp nga xam ne ci taw bi la jóge woon donc euh, ñi sant ñooñu ñëpp ñu ñu wóolu ñu sant tamit technicien yi yoo xam ne ci ñoom lañu bokk aussi di di maa ngi si euh, profiter foofu aussi pour wax leen nii Euh, on s'est rendu compte aussi que vous avez de la matière grise, vos techniciens qu'on félicite, qui étaient présents tout le temps, qui nous ont donné des idées très pertinentes. Voilà. Donc, euh, euh, ñu def liggéey bi donc liggéey bi latérite bi ñu jël aussi pour éviter li amoon am aussi dolli nañ ci ciment bu bëri am malaxeur boo xam ne moo ñëwoon di ko malaxé donc remblai bi yëpp latérite ciment lañ ko defee et puis jumtuwaay yi aussi yi ñu utiliser fii tamit yu dernière génération la yoo xam ni moo tax ñu am li ñu am ñu leen di sant li mu ko waxee ba ci démb Touba ci kanamu sëriñ bi loolu moo nekk waaw maam borom Touba maam Maodo Malick kenn ku nekk ci ñoom jaar bi ci saxaar tey boo demee bitim réew ku nekk saxaar fay def ku nekk saxaar fay def président de la République am na yéene ndax tey bi ñu daggee lii ba léegi ñun amatuñu benn activité ñu ngi fay suñu xalaat mais daf koy téye ba keroog muy defar ak taxaw boobu ba léegi nag ñu ngi def ay effort mais xarit mboqam yi nekk ci wet bi ñoom ñooy traîner le pas dafay effort yi président doon def bu ko mën a defoon kon Faraas defaaram ma ne vraiment ñun en tant que travailleur ñu ngi koy xam ne ko ñu ngi ci ginnaawam ci ginnaaw ministère bi pour jàppale ko ngir saxaar ci jugaat pour population yi ñii tey bu ñu gisatul saxaar lu bëri ci ñoom day jóg. looy wax ci ouvrage bi. ouvrage bi bon ci mën a wax mooy yàgg nañu ñun intervenir ci ouvrage mais. liggéey bi gis nañ ni liggéey bu mucc ay liggéey bu am xam-xam la bu xereñ la parce que ni mu ko waxee léegi nii ñun amuñu capacité moyen yooyu ndax nee na raterie bi sax defaare nañ ci ciment pour mu tenir ce qui fait que donc ëllëg bu ko ndox fekk mu nu ko faa jël ñaareel bi lépp lu nekkoon blocage boo xam ne doon na bloqué ndox mi ba nga xam ne après bu baax bu yàggee day day day day envahir ouvrage bi fatar ñu nan ko donc ñoom liggéeyuñu rek ouvrage bàyyi noonu dañoo liggéey ouvrage ba noppi bala yi lépp loo xam ne entrave la woon bu doon bloqué ndox mi pour mu bañ a envoyé pour en tant que liggéeykat donc ñun en tant que liggéeykat la ñuy ñaan di wax population bi ñaanal mooy saxaar bi reprendre ses à travers ça am nañ ci yaakaar ndax boobu ba léegi président de la République mu ngi fay suñu salaire te amuñu benn activité suñu activité wàññeeku na teewul ñu ngi fay salaire engagement yi nga xam ne moom la jëloon mooy jënd ay machines pour ñu reprendre nos activités loolu wax na ci ak ñun nenu ci décembre bëgg nañu am ay machine voilà donc nous nous réjouissons quand même de la réhabilitation même yoon de mille neuf cent vingt tàmmali di sant yàlla yàlla mi mën li mën a def li mën a am ñàkk am li ñàkk mën a am am <laughs> donc fii presque géej gu ndaw la woon ingénieur laa bon donc tey ñu ñëw si bërëb boo xam ne balaa ñoo ñëw ñu ñu ñu nit toujours dañ doon ne le fond de Koussanar ñu ñëwee ba yegg fii dañu gis ni tàmbali bi ci lañ xam ne Touba euh, loolu pour ndëgëm réew lañu xam ne nit gëm-gëm waaw mais gëm-gëm dañ koy teg si liggéey waaw liggéey ngi si màggal te li muy jàngal mooy gëm na dem ak liggéey tax ñu ne dee leen yëngu donc lii ñun suñu yëngu bu njëkk la bon di sant gouvernement di sant président de la république ñaari président de la république surtout sama mag Macky Sall nga xam ne moo yëkkati sama tur moo jiite ko sama mag yi ministre Sène Camara ministre Ngesi ministre Oumar Youm bi yëpp ak waa gouvernement Mali tam parce que nangu nañ ñu jiite une semaine de faire réew ak bi ma ñëwee bi ma dénkee liggéey bi li ma jàpp moo di ni ku mun lu rëy war nga mën a war nga mën lu tuuti lu dëkk mhm. balaa ñoo tàmbali ni dañuy beesalaat yoon jëlee ko Dakar ba ma ko war nañ mën a commencé defar li yàqu pour que train bi du a ndànk-ndànk dem ma ko mhm. liggéey googu laa woon Euh, euh, président moom laa woon gouvernement ak sama kilifa yi ñun si liggéey boobu lañu ma nangul donc loolu laa tàmbali pour ñun liggéey boobu ñu ko tuddee plan de sauvegarde d'urgence parce que raay gi dafay nekk di yàqu parce que taw bi ndox baaxul si si way donc plus ñuy benn at ñaari at ñeenti at juróomi at raay di yàqu ba suñu ñëwee nii dañ koy bay salaat dañ fi fekk daal moom moo tax ko plan de sauvegarde d'urgence ministre yi nangul ma ko gouvernement Sénégal nangul ma ko gouvernement Mali ak ñaari chef d'état yi nangu na ko donc ñu tàmbali ko si fond bi fond bi maa ngi sant tamit euh, Eiffage parce que këru euh, liggéeykat yu rëy la vrai que ko mais si àdduna bi yëpp ñuy liggéey bon xam nañu seen liggéey si terre bi xam nañu si autoroute à péage bi tey tamit gis ngeen seen liggéey si chemin de fer yi et de continuer ensemble moom pour relever le défi donc sant seen kilifa Gérard Sana nekku fi sama papa la xarit la moom mii sama grand la sama xarit la ñoom ñëpp et puis sant euh, ingénieur du chemin de fer yi tamit parce wax na ko ni boo gisee bi ñu tàmbalee liggéey gi ni mu waroon jar juróom bi ñu ma nee juróom lay jar xamuñu woon sama nit ma ne leen lii juróom yi du ko jar parce que juróom yi xam-xam bi ngeen di indi ak machine yi ngeen indi ak taxawaay yi ngeen indi man wóor na ma ci sama biir kër bi ñaari am na hmm. ñu jógee si lu war a jar juróom mu jar ñett ñaari DDF chemin de fer moo koy indi donc loolu tamit war na nekk loo xam ne ñoom waa DDF war nañ gën man li mu leen bëgg a gëmloo mooy ni mun nañ dara lu ma leen wax rek lu may tàmbali lu mun rek ku mun lu rëy ku bëgg lu rëy war nga mun lu dañu tàmbali si lu tuuti ñu ngi fi ànd ak euh, le ministre Mayacine Camara moment bi ñu ngi nekk ak le maire de Ndam monsieur le maire tey euh, Mayacine ñëwoon di visiter pont bi nekk fii ci Touba Sam Sam nga nekk le maire de Ndam la nga ñu mën a wax tey ci visite bi tey. xanaa dañoo kontaan. lool lool pour ñëw. visiter pont bi parce que pont bi doonoon na jafe-jafe bu commune bi parce que ndox bi su ñëwoon ba fii fii presque dëkk déeg la woon ni ñu mën a waxee déeg la woon te ndox mi dafay bëri woon tellement que suñ ko réhabilité doon xëy na mu am ay jéyee yeneen gaagaa yàq raay bi mais dina indi xëy na mu indi population bi yeneen jéyee mais nag sant yàlla bu ñu réhabilité fii ba tey ndox du fi taxaw du fi ñëw ci ndox day jàll mm-hmm. euh, raay bi mën na continuer tëri bi piste bi mën nañ continuer te duñu am benn jafe-jafe loolu mbégte bu mag ci ñun waa commune bu Ndaam mais plus particulièrement it ñun waa dëkk Touba Samsam di leen sant de passage ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci avant liggéey bi mais ba liggéey bi ba mu egg fii yëpp léegi lan ngeen di xaar li ñu xaar ci ñoom xanaa ñaan gouvernement bi ci kaw ba ci suuf ñu fexe jàppale ñu chemin de fer bi dundaat parce dundin bi dafa am solo lool ci askan bi mhm. ci collectivité locale yi moo taxit même su nekkee tronçon dakaar Bamako bi niveau international bëri na ay euh, acteurs yi ci intervenir bëggoon nañu moom dakaar Tambacounda bi ñu dundalaat ko kooku moom mu commencé di circuler nit ñi mun cee dem di dikk bagages yi di dem di dëkk parce que xam nañ ne Tambacounda Carrefour la région Carrefour la mu ngi polariser 4 à 5 pays kon suñ fa defee benn gare bu mag bi nga xam ne dina relier dakaar mm-hmm. loolu dina xoo doon lu am doole lu am solo ci région Tamba mais it dina dundalaat axe Dakar Tambacounda avant ñuy def Dakar Bamako bi. ok jërëjëf. bi nga xam ne euh, daf ñu dafa jaaxaloon ñu euh, jaaxaloon daanaka ci relancer activité ferroviaire yi surtout diggante Dakar ak Bamako comme ni ni président de la République euh, farloo vraiment ci ci saxaar bi. li ñu ci digal tamit mooy ñu def suñ kéem tolluwaay pour que euh, train bi diggante Dakar ba mu ko mën a tëddee ak dëkk bi ko xoolee ak administrateur gisoon nañ ne amoon na benn jafe-jafe bi ci gën a mag moo nekkoon pont bi daanaka nu ko administrateur waxee léegi dafa nekkoon benn dégg boo xam ne bu yaatu yaatu yaatu ba amuñ ci woon sax yaakaar waaye tey ku fi ñëw di nga gis ne liggéey bi ñu ko liggéey mucc na ayib. ingénieurs yi xarañ lañu xarañ boo xam ne tey jii loolu dal na suñu xel parce que muy ci côté Dakar ba moo ko ferroviaire muy compagnie Eiffage bi nga xam ne aussi dañ leen félicité encouragé leen bu baax gis nañ ni euh, technologie bi ci war euh, maanaam daal defuñ ko ay euh, liggéeyu waya waya dañ ko def liggéey bu mucc ayib bu xam ne fii ba cinquante ans comme ni ñu ko waxee war na mën a tenir mm-hmm. loolu dal na suñu xel donc ñu leen ci félicité di félicité administrateur bi au nom de euh, du ministre euh, El Hadj Omar bi nga xam ne tey jii bëggoon na fi teew moom it waaye dafa nekk ci ci yoon moo tax lii moom xam naa dinañ ko jottali président de la république euh, te buñ ko jottalee xam naa xelam xolam dina ci sedd bu baax parce que yaakaar la buy war a dundaat ni mu ko waxee léegi depuis téeméeri at liggéey bu mel nii mi ngi soog a am ci tronçon bi Dakar boobu waaw ngeen may tamit ma gërëm vraiment gouverneur gouverneur région Tamba bi nga xam ne jàppale nañu baax pour ñu yegsi fi tey euh, mu coordonné aussi ak euh, monsieur le préfet Ndiaye ak euh, sous-préfet Sène bi nga xam ne moom moo nekk Bamba Thialène ñoom ñëpp ñu gunge ñu ak gendarmerie bi ak presse yëpp ñu accompagner fii pour ñu mën a fësal li feeñal ko ba Sénégal yëpp gis ko loolu dinañ ci sant bu baax a baax maire bi tamit euh, moom it dañ koy yóbbante moom duñ ko sax gërëm parce que moo ko moom maanaam moom lañ ko liggéeyal euh, kon moom it ñu ngi koy sas ci mu gungee ñu ci di saytu pont bi euh, di toppatoo aussi liggéey bi lépp loo xam ne du ko du koy gën a dëgëral gën ko jëmale kanam rek ñu ngi ko ci yaakaar moom ak a population bi ñu ngi ko ci félicité tamit te di ko wax ne tamit saxaar bi dafay développé seen gox yi donc lépp loo xam ne ñoo na di liggéey ci côté yooyu da ngeen ko aar toppatoo ko xam ne bu euh, ngeen ko defee seen bopp ngeen ko defal mais président de la république aussi ngeen ko defal moom la mën a nekk di di di di ñu pousse di ñu ñaax. Mm. waaye mënul ñëw fii tout le temps di toppatoo pont bi donc pont bi yéen a ko war a mën a toppatoo ñu ngi leen di sant ñëpp leen gërëm monsieur le préfet monsieur le préfet jërëjëf. Yeah, Gracias. Gracias.